برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان إلى جنته فضلا وكرما بسلاسل الإجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokki jullit ñi gannaaw bi sante yàlla mi nga xam waral lu bëree bëri ci ay jaamam waaye bi nga xam ne moom ko ci ëppal solo bi nga xam ne moom la wax ne du ko baale mooy ñu bokkaale ko ah yàlla nee na ma leen teg yëpp bëri na waaye benn mooy bi nga xam ne mënu ma koo baale mooy koo xam ne dafa ñëw bëgg indi beneen yàlla teg ko ci sama pegg na yàlla yàlla nga na du baale boobu inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalik muy wareef boo xam ne nit ki moom la war a njëkk a xam nga xam ne waruñoo jaamu kenn ku dul yàlla mboolem yonent yi yàlla ma sa yónni seen wax yaag fañ jaar ak problème yi ñu jaar yëpp ak seen peuple li ko waraloon mooy lan mooy ñu war wax laa ilaha illa allah loolu rek lañ bëggoon a ñu julli di sëlmal ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo waxoon peuple am ne su ngeen jëloon jant teg ko ci sama ndeyjoor jël weer wi teg ko ci sama càmmooñ pour ma bàyyi laa ilaha illallah du ma ko bàyyi fekk ngeen wax ko wala ma dem bàyyi leen noonu ñu julli di sëlmal كيونتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني يالا موكو واخ نكو لما لا واخ اك لما لا جوخ موي القران نانكو جوتال صلى الله عليه وسلم مو واخ ني كو ديغي شي مان دارا نغا فخي ني ني ديغ القران ني صلى الله عليه وسلم موكو ديك فيري يالا نكو انزلنا اليك ذكرى لتبين للناس wàccee na alquran pour nga firi wàccee na alquran pour nga leeral wàccee na alquran ndax ëllëg kenn du am ngant ne su fekkoon ne yàlla yónni woon na ci ñu yonantu wax ak ñun kon alquran yàlla wàccee dog na ngant dog na lay pour ëllëg bu kenn wax ne aw ma woon njub am nga njub sa njub mooy alquran sa njub mooy yonantu yàlla sallallahu alayhi wasallam ñëw ne la yàlla lii la bëgg lii la bañ alxuraan jooju nag ci lañ nekk ak yéen ba léegi yàlla di ci nettali histoire bani Israël ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax yonent bi ne ko fàttalikul wa is yu bëri ci alxuraan waskur la fàttalikul waaye yéen ñi nga xam yonent bi mi ngi leen di waar ngeen nekk ay yow da ngeen fàttaliku timit fàttaliku leen lan fàttaliku leen contrat boobu nga xam ne bindoon naa ko man ak ki seen papa la ca nekkoon rek moo nekk ci li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di changé amu ci shara'a lakum min ad-diini maa wassaa bihi Nuuhan walladi awxaynaa ilayka wa maa wassayna bi Ibrahima wa Muusa wa Isa yàlla wax ne yonent yëpp seen objectif benn la li Moussa daan wax Issa daan ko wax moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi di leen wax yéen yow pour ngeen gëm lama d'accordoon ak seeni papa mooy lan na ngeen ko fàttaliku wa iz axadnaa miisaaqa bani Israa'iil miisaax bu ko alquran waxee mooy contrat boo xam ne d'accord nga ko nit nga signé mu signé nga ne ko lii la ñuy def lii laa bëgg mu ne la d'accord naa yéen ñaar ñëpp ngeen d'accord ci ñu dem nag ba jëmmi jamono ay nit ñëw bëgg yàq contrat boobu ay nit ñëw bëgg a ñàkk a appliqué lenn ci loo xam ne yàlla bindoon na ko ak bani Israël ne nañ ko topp nañ ko gëm li ci njëkk ca contrat boobu mooy laa taabuduuna illa allah ah yonent yëpp loo leen moo leen tax a ñëw laa taabuduna illa allah bu leen jaamu kenn ku dul yàlla gis nga yow jaamoon nañ nag wa yonent salaay salaam ñëw pëppalam ne dañuy jaamu laata dañuy jaamu uzza dañuy jaamu ay xeer dañuy jaamu lu dul yàlla loolu moo tax yonent salaay salaam jaar ak ñoom fi mu jaar ak ñoom bañ génne ku mu dem Medina bam demé Medina nak fekk fa ay yahud ba légui yàlla di waccé alquran nan ko fatali len li nga xamni mom la laa waxoon ak seen papa yi bañ bañé di mo len talo bi ci ñek moy lan la ta'budu illa allah bu len jaamu dara lu dul yàlla qul yaa ayyuhal kaafiruuna la a'budu ma taabuduuna ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين xuloo bu yàgg la yonent bi sallallahu sax ci arab yi pour baat bii laa taabuduna illa allah bu leen jàmm leen dudul yàlla ñu ne ko bàyyi loolu su fekkee xaalis nga bëgg ñu su fekkee da ngaa nekk bëgg nekk buur ñu fal nga nekk buur yooyu yëpp proposé nañ ko yonent bi sallallahu alayhi bañ ñu ne ko mu ne laa ngeen wax laa ilaha illallah rek bu leen dara du muy yàqu lan gis nga baat bu yàlla bëgg wax nañ ne yëpp ñu ko waxee ci commencement bi yàlla mën na koo baale lu may nag nga bokkaale ko waabudullaha wala tushriku bi shay'an ah moo njëkk moom la yàlla njëkk a gën a kallaf bi li ko njëkk war mooy mu gëm ne benn borom rek la am mooy yàlla ah jaamu yàlla nga mu neex la mu naqari la yàlla moo la bind waaye est-ce que yaa ngi koy jaamu ah soo ko commencé jaamu nag dugg nga ci beneen affaire waaye mu neex la mu naqari la yàlla moo la bind benn borom rek nga am soo ko utalee beneen borom nag ah mu gën a nekk problème soo nangoo ne yàlla moo la bind mooy sa borom te jaamoo ko ba léegi bokk ko ndax jaamu yàlla nga jaamu yàlla nga waaye est-ce que yaa ngi jaamu yàlla. bokk na ci contrat boobu nga xam ne yàlla bindoon na ko ak yahud yi di ko fàttali yonent bi di ko fàttali xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa bil walidayni wa ihsanan bil walidayni rafetal jëm ci ñaari waajur xaqa waajur lu yàlla màggal la gannaaw ba xaqa yàlla wéyee gis nga ñetti xaqa yi yàlla daf leen a fonk ci alquran xàq waajur lu yàlla màggal la gannaaw ba xàq yàlla wéyee xàq jëkkër lu yàlla màggal la waaye gannaaw bu xàq yàlla wéyee moo tax ñu ne la su fekkee da ngaa topp sa bànneexi waajur wala ay ndigalam ba bàyyi xàq yàlla wala da ngaa topp sa bànneexi jëkkër ba bàyyi xàq yàlla ñu ne waajur yi du la jëriñ dara ah, jëkkër bi tamit dara du jëriñ parce que li njëkk mooy lan mooy xaq yàlla wa bil walidayni ihsanan rafetal jëm ci waajur yi gis nga borom téere ba mu ne la boo nekkee rek ca capital ba di lekk-lekk yu baax yee di sol sol yu baax bàyyi sa waajur fële ne mag la amatu solo alquran waxu la loolu alquran mu ne bala ngaa sol ñoom nañ sol bala ngaa lekk ñoom lañ lekk bala ngaa nekk ca condition yu gën a baax teg leen ca su ko defee yow uti woo alquran alquran mu ngi la wabil walidayni testaana moo tax ba xale ba ñëwee papaam utiliser alalam mu ñëw nag bëgg kaas mu ñëw nag bëgg a wax yonent bi sallallahu ne ko anta wa maaluka li abika yow ak sa alal yëpp seen papa leen moom ah anta wa maaluka li abika alquran mu ne bokk na ci ma bindoon ca tawraat bind ko ci injil waaye bind ko ci alquran mooy ngeen di rafetal jëm ci seen ñaari waajur wal yataama ak jirim jirim bu ko waxee mooy koo xam ne waajuram bu góor baa jigéen bu góor génn na àdduna te fekk mineur la kooku islam ci boppam moo ne nañ ko téye buñ ko bàyyi mu sànq nañ xool ndax mi ngi lekk nañ xool ndax mi ngi naan nañ xool ndax mi ngi jàng gisuma ko fii ci Sénégal waaye boo demee ci pays arabe bi danañ koy def da gis ñoon diine ñoon islam ñaam doole maanaam fii doole ci moo bëriwut ñu ne kër gii de jir ni rek ñoo fi nekk dañuy lekk dañuy naan dañuy def lépp ndax islam boo ko santaane wala yettaama ak jirim gis nga ba léegi yàlla mi ngi bëgg a la ne nit ak lu dul nit duñ benn boo demee ci fiq da lay wax ne la jirim ci doomu adama mooy ku boppam génn àdduna waaye jirim ci xayawaan yi ay xar ak béy mooy ku yaayam génn àdduna ñu ne ko lu tax mu ne la parce que ñooñu kenn seen bopp nu leen neex rek la ñuy sëyee moo tax muy la moytul nag nga mel ni ñoom ah su nooy mel ni ñoom mooy nga indi koo xam ne ci ci ci peuple bi kenn xamul boppam ah yaa ngi delloo nit ñi ci ah, ci koy ci jikkooy bàyyi may moo tax islam tere lañ ngaaloo parce que xale bi dafay juddu kan lañ koy adressé ah xamuñ kan mooy boppam moo tax ñu ngi lay ci nit. mooy koo xam ne papam dafa génn àdduna waaye jirim ci xarat bay mooy koo xam ne yaayam dafa génn àdduna ah parce que xamuñ kenn moo ko jur ah xamuñ kenn moo ko jur soo commencé nag jëf jëf jëf yu suufe yooyu yaa ngi bëgg a orienté ñi ci jëf yi jëf yi suufe suufe mooy jëf nga xam ne ah mala yi ñoo koy def mooy rek nga nga sëq jigéen boo xam ne ah pas-pas waru ko ah contrat waru ko nu mu la neexee rek su ko defee nag yaa ngi orienté nit ñi bëgg a nekk ci jikko yoo xam ne ah islam islam tegu leen foofu yow yaa leen fa bëgg a teg kon wal yataama ak jirim ku bàyyam génn àdduna te amagu 18 ans islam mu ne bàyyi leen kal ci ko moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bés benn ci nag ñan ñooy nekk sama xarit ñan ñooy nekk sama tamba mesure yi nga xam ne ñoo may dar bu may lekk ñoom laay lekkat su may naan ñoom laay naanat mu ne ñooñu nga xam ne dañ doon ah fonk jirim ñooñu lay àndal ah ool ma diw ool ma diw ool ma diw ndax daf daan fonk jirim man ñooñu laay nekkat tey ah ñun bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bés penc yi maa ngi ànd ak maa ngi nekk ñi nga xam ne ah dañ daan fonk jirim dañ daan toppatoo jirim walma masaakiin i ba léegi yàlla lay laaj ñu ñàkk ñi miskin mooy koo xam ne bu nekkee du añ bu añee du reer amma safinatu ca suratul kaafi fa kaanat li masaakin yaabuluuna fi bahr ñu ne kon miskin am na dara waaye su fekkee lim am baaxul na ah benn gaal bu ndaw rek la am léegoo-léeg mu am léegoo léeg du am ñu ne ah faqir moo gën a moo gën a ñàkk miskin parce que miskin yàlla wax na ci alquran mi ngi liggéey amma safinatu fa kaanat li masaakin wala am na dara waaye daal lim am doy ko islam mu ne bàyyi leen kooku xel bokk na ba léegi ci contrat bi li nga xam ne yàlla bind na ko ne nañ ko respecté wa quulu li naasi usnan wa quulu wax leen li naasi ñeel nit ñëpp usnan wax ju rafet mooy booy digle nga digle lu baax ah du yaa war digle rek ngay digle ni ko bëggee wala ni la arrangé di not nit ñi di teg ci ñoom seen kaw loo xam ne attanuñ ko islam mu ne déedéet wa quulu li naasi husnan wax ji nay rafet waaye am na lu gën a xóot loolu waaye nay nekk loo xam ne yoon la ah wax ji nay nekk wax joo xam ne wax ju baax la booy tere ni nga tere loo xam ne lu bon la lu baax kenn du ko tere soo teree lu baax ngir sa bànneexi bakkan yàlla mi ngi wax ak yow soo diglee lu bon ngir sa bànneexi bakkan yàlla mi ngi lay tere nga la wa quulu linnaasi husnan loi bi nga xam ne yàlla tëral na ko mode de bi nga xam ne yàlla tëral na ko doomu ne ko fii nga war a jaar mu ne ko wax di musala del julli moo tax ñu ne mboolem xeet yi mboolem yonatu mos a ñëw rek sañuñ julli nañ wax di musala te da ngeen di julli ñu ne julli inna salata déglul alquran inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dikrullahi akbar nee na julli daf lay tere yu bon yi maanaam day tax doo ko mën alxuraan secret la day tax doo ko mën ah boo respecté julli julli ci boppam mooy ñëw aar la julli ci boppam mooy ñëw sécurité la ku bon du la jege sa ku bon du ko jege yow sax soo bëggee def lu bon mënoo ko lu tax parce que yàlla moo wax ne inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar ah julli gi ci nangu kim nangu ci li nga dajal yàlla julli gi mooy ñëw aar la julli gi mooy ñëw aar sa alal julli gi mooy ñëw aar la ci fahsha ak ya munkar fahsha ak ya munkar firi bu yaatu la mooy lépp lu bon mooy lépp lu rek julli ko gis ah boo ragalee kon del julli moo gën a gaaw yi ngay wax yépp del julli rek respecté julli juróom rek nga xool kenn mënu ci yow dara waatu zakat ca contrat ba lañ nekk ba léegi ak nit ñi ne pour ma nekk yàlla ngeen nekk ay loi bii laa tëral na ngeen ko respecté bokk na ca waatu zakata ponk bu jafe la julli moom yomb na bu ñëpp kàbbaree rek nga kàbbar waaye alal ji doo ko laal mukk ba léegi ndax yàlla moo ko nee na waatu zakata alal ji mën a jox dee ci génne azak moo xam baykat nga moo xam da ngaa dajale alal moo tax moo xam da ngaa am ay gàtt yooyu yëpp alquran nee na ah nañ ci joxe parce que wa aatu zakata yàlla mi ngi bëgg a examiner ni ki ndax ah ndax alal ji ndax bu agsee ci jëf dana jëf wala ah, alal ji moo ko gënal yàlla léegi nag dërs bi ñu jàng yëpp ci diggante gis nga huit affaire yi ñu nii yoo xam ne yàlla moo ko tëralal boppam du loo bu nit bind yàlla ko tëral nii ngay def nii ngay def ah jëmal yàlla amul foofu mu ne la baaxale sa waajur fonkal mbokk yi zil qurba zil qurba firi nañ ko zil qurba mooy jege ñaale yi famille bi noo def ak ñoom sa bàjjan sa tànta ah sa papa sa yaay zil qurba waatu xaqahu am na yàlla mu la jege ñaale yi am nañ ci alal ji ngeen joxe rek topp ñeneen ñi rek bàyyi ñu la jege wal yataama jirim wal miskin ba pare mu ne la del wax wax ju rafet jullil joxeel azak nga gis yàlla bëgg defar nit bëgg laa xamal ne la yéene bi kese doyut wax ji kese doyut ah yooyu yëpp nag pour nga nekk ni koo xam ne ni ko yàlla bëggee la yéene bi ak wax ji ak jëf yi ñooy ànd ñetti mbir la yoo xam ne bu manqué rek du baax ndax nit ki mën naa yéene su ma amee nangam danaa def nangam papa su ma amee xaalis danaa la jëndal nangam xaalis bi ñëw nga calcul li ko war a jëndal nga ne ah li dafa bëri xaaral daal ma def ci leneen xam nga yéene nga waaye ba léegi ah amoo tawfiix seytaane gañee na la parce que bi nga yéenee ba am au lieu que nga def seytaan moo ñëw dominé la ne la pourquoi ngay def loolu paa nga xam ne jëm na mag soxlawul lii ah loolu yëpp yàlla mi ngi xool ndax yow ah seytaane yaa ngi xeex moom ndax moo lay gañee wala yow yaa koy gañe kon ñu ne yéen a baax na waaye am na foo xam ne yéen a baaxul parce que yaa ngi nii nga waaye seytaane ñëw na génne la ci sa yéene boobu ah wax nga maslaha taxaw na mbokk ngi nii yéene nga ànd ci projet xam nga ne saa moom du jàll saa moom li nga bëgg a jaay ni du jaay nga ne ah, xaaral ma nax ko rek su lii jëree danaa la defal nangam te yow xam nga ne waxoo dëgg ah, moo tax yàlla mën na la yow yi foofu lañ juumee te yow xam nga ne waxoo dëgg wax ji ba léegi ah taxaw parce que yow ci sa bopp amoo yéene pour def ko wax nga ci sa làmmiñ waaye yéene bi matu apparemment ak moom rek ne ko mbir mi su jaree danga am nangam su ma amee nangam danga am nangam ba mu jar waaye bi nga koy wax xam nga ne doo ko def. kon wax boobu baaxut jëf yàlla ne la il faut tamit jëf bi ñëw ah il faut jëf bi ñëw jëf bi suy ñëw dama bëgg mu nekk jëf joo xam ne man rek la ñeel man yàlla waaye du tax nit ñi moo tax nga di koy def lu la yàlla wax rek am na lu muy baaxee am na nu muy yàqale yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yéene bi sell na xam nga kon yéene baax na waaye nag est-ce que yéene bi su matee wala su matul est-ce que yow sa yéene selloon na bëgg naa def nangam mu sell ci sa xol amoo ko yéen bi sallallahu nee na am nga tuyaab parce que yàlla mooy contrôler la xam na ne bëggoon nga ko waaye manoo boobu tam nga yéene ba pare am seytaane ñëw génne la ci boobu dafay gën a garaaw ci yow boobu tam nga wax ba pare te yow bi ngay wax xam nga ne li ngay wax doo ko def islam mu ne la ba léegi ah soxloo ma loolu jëf ji ci mën naa ñëw yàqu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne la aji saraxe ji li ndeyjoor bi joxe bu ko càmmooñ bi xam lu tax mu tax dafay bañ jëf ji yàqu mën naa jëf jëf ji yàqu am na ñu ñëw bés penc yàlla ne leen lu ngeen ñu ne ko ñoo fi dàqoon a julli di duñ daan julli de mu ne waaye bu ngeen di julli da ngeen ko doon def rek pour nit ñi wax ne ah ay jàmmkat yàlla ngeen dem leen seen jëf ju xabaar Mansour nanguma ko na ñeneen ñëw ñu ne borom alal yi nañ dugg si yàlla ne waaw lu ngeen jëf bés bii tey lu ngeen ko jëfal ñu ne waaw ñun suñu alal yëpp ñu ko doon financé ñoo daan def nangam ñoo daan tabax nangam ñoo daan def nangam mu ne waaye da ngeen ko daan def ngir di baax da ngeen ko daan def ngir nangam da ngeen ko daan def ngir tur ya. te ko bu daa def ngir puukare nanguwuma ko moo tax yooyu yëpp yàlla bëgg la cee raxas bëgg la nga nekk doomu aadama boo xam ne ah, li ngay wax ah, ak li ngay jëf ak li ngay yéene ah benn lay nekk ah benn lay nekk su ko defee nga mën a nekk abdan lillahi xaalisan moo tax yàlla mu ne ku jaamu yàlla jaxase ko ak leneen yàlla mu ne bàyyi naa la loolu jikko yooyu nag moo nekkoon ci yahudi yàlla bañ mu dal la yow nga xam ne da ngaa bokk ci xeetu yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas loolu nag moo tax ci alquran yàlla di la fàttali wa iz aqaznaa wa iz aqaznaa wa iz yi ci alquran bëri na yàlla mu naa la fàttalikul fàttalikul fa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin mu ne fàttali bi yëpp nag dana jëriñ dana jëriñ ñi nga xam ne am nañ iman bu la jëriñee nag moo la yóbbu ca place yu kawe moo la yóbbu ca maqaama yu kawe su ko defee ñu diw kañ la am lii fekk dafa tënku dafa jaar ci route bi nga xam ne moom la ko yàlla tëralal léegi gannaaw respecté na loi yi moom kenn du ko daan ah kenn du ko daan te yàlla dana ko aar dana ko protégé mi ngi mel ni ñu koy gisee ci jamono jii rek. booy dawal sootu am permis kenn ñu la arrêté parce que am nga permis ah sa këyit su matee buñ la contrôlé sax dañ lay bàyyi rek nga jàll ah, waaye su fekkee ma mataloo nag ah su fekkee mataloo dañ lay taxawal te mën nañ laa daan tamit yàlla lu wam bi la mel kon ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne wax na ne li ma leen digal yépp ma mu leen ko saa ma bokk ci moo tax mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jàmm yàlla yépp su ma ci bokk du baax mu ne wa ma tawfiqi illa billah kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may tawfiq ba li muy digle ak li muy tere ñu mën koo defee ni ñu ko bëggee wax nañu ajuma ëri namu yàlla fi imam bi di toogee udullah wa antum mu'minun bi am na ci weer yi guddi goo ne moo gën dindee weer mu ne leen am na weer woo xam ne mi ci seen kalam jege na képp ku góorgóorlu ba def ci benn jëf bu baax dañ koy bindal ku mel ni dafa def soixante-dix farata sabiina farida mu ne leen weer la woo xam ne yàlla def na bëccëg gi muy farata ci yéen kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum farata naa ci yéen ngeen woor ko comme ni nga xam ne noonu laa ko farataale woon ci nation yi nga xam ne jiitu woon nañ mu na leen ba léegi ku góorgóorlu def ci lu baax wax ci lu baax dundale ci kooku dafa mel ni ah koo xam ne def na ay jëf yu mag yoo xam ne man yàlla ci boppam man maa koy fayal sama bopp asiyaabu lii wa ana ajzi bihi du ma yónni kenn maa koy fayal sama ñu ne weer la woo xam ne farata la bul kéré sa bopp feebar farata la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tere nañ nga or bés bi nga xam ne dafa sës ci weeru koor lu tax mu ne dañoo bëgg ñaari weer yi ah takkale ah lu may nag koo xam ne dañ daan or alkemes wala altine su ko defee ñu ne koor gi talaata la na baaxoo woon di or altine may na njëkk waaye bëgguñ ci fan yi nga xam ne ñu ngi séntu weer wi ngay or or naafile rek parce que dañuy bañ mu mu takkaloo ak weeru koor yi. sallallahu alayhi wasallam tere na loolu. mu ne na weer la woo xam ne bu jublu see nga jël ñi nga xam ne yaa ngi leen di liggéeyloo moo xam ci société bi lañ nekk moo xam ay mbindaan lañ moo xam luñ mën a doon nga ne ko yow de danga daan liggéey huit heures ba cinq heures léegi wàccal trois heures yuntu bee ko wax nee na kooku yàlla dana ko baal la dana ko yërëm ba pare yàlla dana ko wërsëgal ba pare yàlla dana yëkkati maqaamam man xafafa an mamluukihi mamluuk mooy képp koo xam ne mi ngi sa suuf rek heure yëpp daal liggéey nga wàññi ko borom xam-xam yi ne bokk na ci ba léegi lii laa daan fay yokku naa ko ndax koor gi ñu ne wa man yuazim sha'air allah fa innaha min taqwa qulub loolu dafay joxe gëm yàlla te gëm yàlla ci la lépp nekk lii laa daan fay waaye ndax weer wi yokku naa ko ñu ne màggal nga sha'airillah te sha'airillah mooy joxe taqwa te taqwa mooy joxe wërsëg taqwa mooy joxe aljanna taqwa mooy joxe kaaraange taqwa mooy joxe lépp kon weeru màgg la woo xam ne ci ajuma ji nga xam ne moo mujj ci weer yi ñun bi sallallahu alayhi wasallam xutba na ñaax jullit ñi wax leen ne weer la woo xam ne farata la nañ ko fonk nañ ko waajal ci jikko ya nañ ko waajal ci jëflante lu baax nañ ko waajal ci oyofal ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk suñ suuf lépp ngir yàlla te yàlla rek tax ñu ngi ñaan yàlla ci barke weeru Shaabaan yàlla ñu yàlla dimbalee boppam ñu ngi ñaan yàlla ci barke weer wi ñu dënmal ñu ngi leen ñaan la yow yàlla bul bàyyi benn soxla boo xam ne du mooy yàlla xam nga ko yow yàlla illa antana ala qadaiha illa antana ala qadaiha illa antana ala qadaiha yusri minka wal afiya innaka ala kulli shay'in qadir اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها واكمل لنا المشاعر يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة لنا من أمرنا رشدا لنا من أمرنا رشدا لنا من أمرنا رشدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Thank you.